alors merci beaucoup à Nescafé mi ñuy euh, gunge euh, ci euh, matinale bi info matin moom moo ñuy jàppale ngir ñu mën a yeewu bu baax a baax avec une bonne tasse de café chaud le matin alors Souleymane Niang egsi na Souleymane maa ngi lay nuyu di la ziar soxna maa ngi lay fay bu baax di nuyu El Hadj ak Maron di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi bu baax a baax. Mm, Souleymane ci wàllum koom jàngatay jile wàllum transfert d'argent ngay waxtaanee ak ñaari géants yi ñu tudd leen muy Wave koy mëne wu pour euh, euh, gagner marché bi. waaw euh, Orange Money ak ak Wave dañoo nekk ay ay ay acteurs yu important mhm. ci li ñu tuddee monde fintech pour ce qui concerne Wave. Mhm. ak lépp lu jëm ci mobile money. Mhm. ñoom ñaan ñoo bokk mobile money mais kii fintech la kii opérateur de. téléphonie la et puis vraiment c'est c'est un groupe maintenant multiservice dañoo nekk ci lu bëree bëri bëri c'est important ñu def distinction boobu mais ñoo bokk benn marché mhm. muy marché euh, de la monnaie électronique et du mobile money moom mooy les portefeuilles électroniques avec tout ce que ça offre comme service mhm. wala possibilité pour les clients benn bi moom mooy Euh, chargement moom mooy euh, dugal xaalis def ko ci sa portefeuille denc sa xaalis mhm. électroniquement beneen bi moom mooy paiement yu muy permettre paiement marchand transfert yu muy permettre de personne à personne ak yeneen service de business à personne am na ñoo xam ne léegi seen salaire ci loolu lañ koy jaarale euh, sans compter maintenant retrait espèces yi parce que boo jëlee sa xaalis nga denc ko ci sa portefeuille électronique saa yoo ko soxla mën nga dem point de service ñu euh, defal la lu mel noonu léegi nag ñoom ñëpp ñu ngi jéem yokk service yooyu bu ngeen déggee si wax yi mujjee yi euh, ñii ñu ngi wax dañu bëgg rémunérer même épargne bi mais loolu benn problème la xëj na dañ ci ñëw bu si kanamee mm-hmm. tuuti mais en tout cas euh, le fait marquant moom mooy la guerre des prix bi am seen biir mm-hmm. moom mooy xëcco bi nga xam ne ñu ngi koy xëccoo ci njëkk yi pour qui garder Euh, quand même sa clientèle moom mooy Orange Money nekkoon fi leader ba yaakaar naa ba léegi ñoom ñooy leader waaye boo xoolee chiffres yi <laughs> euh, les derniers chiffres disponibles mm-hmm. moom mooy yaakaar naa troisième trimestre 2021 bi bi nga xam ne septembre la jeexe euh, boo jëlee chiffre d'affaires mm-hmm. Euh, Orange Money. Mm-hmm. c'est cent onze milliards yu teg. c'est quand même beaucoup. cent onze milliards. Euh, mais contrairement aux autres métiers de Orange. nga xam ne broadband bi dafa yokk yokk bu bëri. Euh, même voie dafa yokk yokk bu bëri nga jël les données mobiles dafa yokk yokk bu bëri croissance bu mag a mag a mag mais ñoom ci seen monnaie mobile boobu dafa wàññeeku tuuti dafa stagné mais y a eu moins un pour cent c'est dire que tout le groupe est en train de croitre de façon relativement exponentielle mmh. yeneen métier yëpp dafa mmh. yokk yokk bu tar waaye euh, mobile money bi nga xam ne ci relais de croissance yu ëppoon importance. dama jox benn firnde rek tey jii. bokk na ci li gën a yokk broadband. moom mooy flybox yeeg euh, euh, fibre optique bi et cetera. yokk na 64 pour cent peut-être même plus mais euh, euh, volume bi c'est quelques dizaines de milliards. alors que mobile money bi. nu mu stagné noonu malgré stagnation bi sont quand même à 111 milliards c'est l'un des postes qui rapporte le plus d'argent mhm. mais croissance bu mu amoon bi wàññeeku na wala stagné na parce que dañoo roñee ay parts de marché am te mhm. Wave bokk na ci ñi roñee nan la roñee benn modèle économique bu simple mhm. ñëw nañ fekk nañ benn opérateur bien établi am clientèle bu mag di am xaalis bu bëri de booy retirer da ngay fay booy envoyer da ngay fay ñun ñu indi modèle bu bees boo xam ne boo retiré doo fay. ba pare nag envoi bi ñu wàññi ko indi ko 1 cent alors que ñu la ñu ngi woon 3 pour looloo indi Alioune Ndiaye bi nga xam ne moom mooy euh, euh, ki gën a kawe ci euh, niveau groupe bi ci Afrique de l'Ouest Asie. Moyen-Orient et tout. indi woon wax ji mu waxoon ji. Mhm. ne seen modèle économique boobu mhm. ce n'est plus viable il faut ñu changer ko mhm. on ne peut plus continuer à demander ñi di ñëw di retirer xaalis ki nga xam ne dafa soxla xaalis ñoo nekk ko mhm. mënatuñu accepter muy fay donc ñu réajuster foofu mais dégg ngeen aussi réaction wave mais loolu dinañ ci ñëw parce que ils ont profité de l'annonce parce que Orange a fait quand même une annonce à une grande pompe de ces nouveaux tarifs malgré tout wave a essayé de profiter de dañoo comment dire euh, cannibaliser un peu l'événement de Orange ils ont essayé en tout cas à travers une communication euh, et c'est vraiment au plan stratégique très intéressant ce qui est en train de se passer. Mortal Kombat bi moom ku ciy mucc ku ciy sànku. alors faire un peu de théorie. Euh, dafa am benn borom xam-xam bu mag bu ñu tuddee Michael Porter nga xam ne ci affaire stratégie d'entreprise vraiment kàngam la si bu mag a mag américain la dafa am benn règle boo xam ne daf ko wax. Mhm. te na lu bëri wone na ni loolu dëgg la moom mooy gis nga boo jëlee benn secteur d'activité opérateur yi surtout ñu si gën a mag di xeexee prix pris bu nekkee levier boobu rek la ñu xeexee seen concurrence secteur boobu dans son ensemble day daal évidemment euh, c'est pas une règle applicable parce que am na ñoo xam ne def nañ ko mhm. mais benn opérateur bi dee keneen ki continuer wa illa keneen réajusté wu et c'est là où se pose la question de euh, pourquoi parce que Orange ak Wave yëpp ay kàngam lañu am. Ah. Mhm. boo jëlee Orange y a quand même euh, des mhm. sommités dans tous les domaines ay stratégie commerciale technique euh, tout ça donc xam nañ ni ñuy def mais expliquer guñu ba léegi lu tax ils n'ont pas fait un autre choix que de combattre Wave par le prix parce que am nañ taille critique boo xam ne Wave amu ko mhm. fintech la. ñoom ils sont un opérateur bien que. dañoo créer filiale boo xam ne mooy euh, Orange euh, Orange Finance euh, Service. boo xam ne loolu rek mooy mooy liggéeyam mais dafa intégré dans un groupe boo xam ne am nañu ay levier yu ñu mën a. capitaliser ëpp doole Wave. pourquoi ils n'ont pas choisi beneen stratégie par exemple yokk valeur. proposition de valeur au client parce que client itam noonu la ñun li ñu arrangé moom mooy prix yi di gën a wàcc rek. Hmm. bu doon suñu sago booy envoyé doo fay. booy euh, retiré doo fay mais boobu dootul amati valeur. Hmm. donc ñoom ils n'auront plus intérêt à le faire parce que duñ ci gagné xaalis sinon looloo indi le point bi ma doon junj sànq. Hmm. xanaa banque centrale autorisé leen ñu commencé léegi di rémunérer épargne bi. ba pare di ko placer di ci am xaalis di def un travail de banque. de banque carrément mais pour l' instant en tout cas euh, au niveau fit réglementation bi toll actuellement. Mhm. Euh, bien que Orange xaw na ko junj. que nii dañu nar a commencé rémunérer je sais pas s'ils ont eu l'autorisation mais jusqu'à l'année dernière la banque centrale freinait des quatre fers parce que ñoom ñëpp commencé nañ demander autorisation rémunérer épargne euh, accorder des crédits comme banque yi ni ñuy def. Ah, mais la banque centrale leur a dit au oui au niveau de la réglementation. Mhm. à l'état actuel de la réglementation ñoom mënuñu def liggéey boobu c'est réservé exclusivement aux banques et euh, aux services décentralisés. moom mooy euh, microfinance microfinance yooyu est-ce que du ko rey itam bu ñu leen bu leen bu ñu leen joxee euh, décision boobu ndax du rey banque yi. ça c'est le travail de la BCEAO de veiller après le monde évolue. parce que yu bëri day am ci yeneen dëkk tu es obligé de les appliquer ici parce que nit ñi dañu voyager dañu gis lu xew ci àdduna bi. Mm-hmm. dañu am tamit ay demandes. alors pour revenir à Orange Wave. Oui. pourquoi Orange ne s'est pas positionné sur une proposition de valeur. Mmh. supérieure à Wave parce que Wave comme on dit opérateur autonome la fintech la pur player la. Mm-hmm. alors que yow am nga téléphonie am nga leneen am nga leneen. am nga leneen c'est-à-dire. Euh, comment euh, peut-être proposer loo xam ne xaw ma ko su ma ko xamoon fa lay liggéeyee <laughs> mais euh, je sais que am nañ ay kàngam yoo xam ne d'abord bu ñu décider top wave ci guerre des prix bi. Mhm. am na logique donc ñoom ñoo xam ñu tax ñu def ko est-ce que dañoo bëgg. ray wave daaneel ko est-ce que dañoo ëpp wave doole au plan financier bu tax ni bu ñu demee ci guerre boobu. Euh, Wave moo i bàyyi ay plumes waaye ñoom financièrement ils pourront suivre même avec 0,8 pour cent au lieu de 1 pour cent mhm. euh, mais à l'évidence non parce que boo xoolee chiffres yi mu leen jox sànq moom mooy 111 milliards yi avec quand même une stagnation voire un petit recul de 0,8 pour cent mhm. ci seen euh, chiffre d'affaires euh, ça veut dire que effectivement ñoom lu ñuy def li sax da leen di gaañ mais xëj na dañoo yaakaar ni bu ñu demee ba ci biir ça blessera plus Wave que ñoom lu mu leen di gaañ et un moment Wave va devoir décrocher et ñoom dinañ mën a indiwaat yeneen tarif mais l'autre option c'était vraiment d'augmenter la proposition de valeur au clients mmh. sauf que dans ce domaine-là pour nga am benn benn benn opportunité de proposer une valeur supérieure bëriwul parce que client bi la la bëgg il veut de la rapidité sécurité bi aussi. mais rapidité d'abord. Mmh. rapidité te rapidité dès lors que tu dis mobile money mu ngi fi. ay bouton bouton bouton la d'autant plus que ñoom ñëpp am nañ léegi ay QR code. c'est même plus la peine ngay def ay. Euh, combinaison da ngay ñëw rek teg sa QR code fay wala def euh, sa transfert et cetera donc côté boobu il y avait pas de marge pour euh, proposer une valeur supérieure. Mm. mu des lan mu des. convenience c'est c'est la facilité de de de fair wala euh, le cadre bu demee di déposer xaalis euh, ñàkk xaar bi ngay ñàkk xaar xëj na climatiseur bu ñu lay defal wala xaar bu yemb bu ñu lay defal et cetera côté boobu tamit mm. amul marge mm-hmm. parce que loo def rek sa moroom def ko c'est très facile mm-hmm. sécurité bi c'est un facteur important or la sécurité mm-hmm. euh, Orange ni Wave amul kenn ku mën a wax ni am na plus de sécurité que keneen ki euh, j'ai les chiffres, le nombre de fraudes rapportées à la BCAO, c'est marginal au regard du nombre de transactions. da ngay gis benn trimestre boo xam ne non semestre semestre dernier semestre 2020. Mm -hmm. 1 milliard 700 mille 1 milliard 700 mille transactions. Mm -hmm. en 6 mois pour une valeur de milliards au niveau de l'UEMOA. Euh, le nombre de fraudes sur les montants c'est des dizaines de millions de francs c'est rien du tout boo ko rapporté ak vingt mille milliards mmh. donc sécurité bi aussi c'est verrouillé d'où la question xëj na bu Orange euh, luttewul sur une proposition de valeur supérieure sur d'autres aspects ça veut dire que probablement il y avait pas une opportunité bu ñu ko gisoon bu amoon ñoom ñoo ma koy njëkk a gis. Mm-hmm. alors donc reste le prix le levier du prix et jusqu'où ça va aller en tout cas ça va être au bénéfice des mm-hmm. clients tant que ñu ngi am deux voire plus de concurrents. Mm-hmm. mais attention ça peut être euh, un faux jeu parce que. tant que ñu ngi am concurrence boobu prix bi di wàcc ñun moom dañu kontaan. waaye bu ñu demee ba kenn si ñoom daanu. mu des kenn kese koo xam ne moom mooy am une sorte de. monopole dafa waat de pouvoir de marché. parce que monopole mënutul am. Mhm. les opérateurs dañoo bëri au niveau de la sous-région euh, même au Sénégal sa m'étonnerait mhm. que mu bañ a bon n'oublions pas qu'il y a quand même euh, Free Money. il y avait euh, Money Express. Mhm. Euh, il y avait Wari avec tous les problèmes qu'il y a mhm. maintenant et tout donc duñu mus a am monopole. par contre pouvoir de marché dinañ ko am c'est-à-dire quelqu'un qui a un tel leadership. qu'il peut mhm. imposer ses tarifs. Euh, Souleymane euh, benn première question bi mooy d' abord ci changement modèle économique mooy riposte bi nga xam ne euh, Orange apporte na ko est ce que du lu nga xam ne xaw na tardé parce que même s'il dit envoi 0,8 pour cent ngay fay contre pour cent à Wave retrait bi Sénégal dañu am ce qu'on appelle des habitudes de consommation mm. xëy na sax man chiffre yi nga joxe noonu ni moom la Orange affaire am baissé man dina ma xaw a jaaxal tuuti parce que boo demee ci terrain bi réalité bi leneen la ñi nga xam ne tey ñoom ñooy liggéey ci transfert d' argent boo demee seen point dañ lay wax ne actuellement nii Wave moom moo gën a dox seen compte boo ci dugalee xaalis pour Orange Money mën na fa yàgg alors que Wave bi dinañ ci liggéey au moins ay million ci benn ci ci benn journée est-ce que riposte bi yeexul ensuite beneen question bi mooy ci guerre boobu euh, est-ce que Wave aussi sort bi daloon jooni jooni daloon wari du leen dal parce que ñi ci euh, xeex ak Orange yëpp finalement dañoo mujj daal. alors d'abord sur les chiffres. Euh, les les les 111 milliards c'est quand dans le rapport euh, de de gestion. Mm-hmm. xam nga Orange dañ ko dañ ko coté à la bourse. Mm-hmm. boo demee sur le site de la BRVM nga dem euh, sur les publications des sociétés qui sont cotées. dañoo am obligation de de de de de d'information de divulgation et cetera donc seeni ay comptes euh, sur une base, euh, puisque c'est un groupe, euh, voilà, euh, c'est une multinationale, un groupe international, sur une base trimestrielle, de nous gagner des rapports de, de gestion, euh, sans compter le rapport annuel avec les chiffres, les comptes, etc. Donc, le, le, le rapport de, de, du troisième trimestre est disponible sur le site de la BRVM. C'est facile d'aller retrouver ces chiffres-là avec toute l'analyse qui va avec. les milliards, C'est des chiffres qui sont affichés publiquement. Euh, et euh, la stagnation, voire la petite baisse presque imperceptible de, de, de 0, quelques pourcent de ce chiffre-là sur une base trimestrielle, ça aussi c'est un, un, un, fait avéré. Maintenant, euh, l'autre l'autre aspect question bi moom mooy modèle économique en vérité c'est pas Orange qui a amené un nouveau euh, modèle économique c'est la fintech qui a amené un nouvel euh, euh nouveau modèle économique mmh. et dans le jargon on appelle ça de la disruption disruption contrairement parce qu'il y a une connotation technologique de la disruption les gens mmh. pensent que disruption moom mooy nga ñëw fekk benn euh, secteur nga xam ne dañuy utiliser technologie nga indi technologie changer les règles du non c'est d'abord le modèle économique Et le modèle économique, c'est comment tu crées de la valeur, tu la communiques, tu la délivres, etc. C'est ça le modèle économique. Alors, modèle économique orange, pour lan euh, euh, euh, Wave ñëw def disruption parce que orange moo fi nekkoon te orange mooy leader en général leader la ñuy dis la ñuy def disruption mm-hmm. parce que boo nekkee leader en général tu as tendance à être à dormir sur tes sur tes lauriers d'ailleurs mm-hmm. dans les multinationales maintenant ce que les gens font Euh, en termes stratégique da ngay jël benn groupe ci sa biir groupe sa biir société nga nga mettre leen dans les conditions du concurrent parce que boo deful noonu doo am cette euh, cette vigilance qui fait que euh, muy mel ni ngay dawal oto nekk ci kanam. ok ñi nekk sa gannaaw ñoom ñoo la mën a dépassé yow mënutoo leen dépassé parce que yow yaa nekk si kanam. mais il faut nga amee rétroviseur yu lay won ni kii mu ngi ñëw à une vitesse nan laa koy contrer et cetera. moom garaaw na exactement donc wave est venu mais out of the blue comme comme on dit. Mhm. et ils ont bien analysé ce que Orange faisait et d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que Orange, euh, et d'autres, et ils ont regardé le modèle et ils ont dit si on attaque sur ce modèle-là. Maintenant, euh, dans, cette opération, il y a des gagnants et des perdants. Mm-hmm. Les gagnants, les principaux gagnants sont les clients. Mmh. sont les clients. Mm-hmm. moo li nga wax ni tamit dëgg la nit ñi dem. ci euh, nouveauté bi c'était une nouveauté en général au Sénégal quand il y a une nouveauté ñëpp procédure bi simple na. Mm-hmm. exactement loolu moo tax te ñu bëri ci dëkk bi jànguñu. Mm-hmm. exactement bi pour da ay bësal 2 bësal 3 bësal 4 bësal cinq bi dafa simple li lii orange nag nag riposte la. Mm-hmm. dañ ko dis dañ ko def disruption. mu contre-attaquer alors là où j'ai trouvé la contre-attaque un peu faible c'était au niveau de la communication. parce que bi wave ñëwee. xam nga am na benn moment boo xam ne nit ñi amoon nañ ay doute. Mhm. naan lii arnaque la ak. wóor na et cetera. foofu la ñu waroon Orange aurait dû s'engouffrer dans cette brèche là <laughs> pour démolir un peu. Mhm. Euh, l'image bon quand je dis ça je dis ça mais. Euh, bon, je souffle à l'oreille c'est pas légal. c'est pas légal li may wax li c'est pas légal ils ne peuvent pas mais. en toute légalité mënoon nañ def ay opération pour anticiper déjà disruption wala boog limiter disruption bi à ce niveau là ils l'ont pas fait ba Wave jël des parts de marché quand même assez conséquentes et aujourd'hui je pense que et ça me ramène à l'analyse initiale mhm. la seule marge qu'il leur restait c'était le prix mhm. et le prix évidemment nii bu continuer mhm. et d'ailleurs Wave mu ngi leen di xaxar parce que Wave dafa leen wax ni mhm. vous avez baissé le vous avez euh, annulé les frais de retrait mhm. comme ñun parce que loolu moo nekkoon nouveauté ci modèle économique bi c'est euh, éliminer les frais de de retrait ok ñun ñu wàññi frais d'envoi à 1 pour cent maintenant vous entamez une guerre des prix vous allez en deçà de 1 pour vous êtes à mais vous n'avez pas la gratuité du paiement des factures. des factures waaw ñu bëri nag ci loolu la sukkandiku sax. mais je, suis convaincu que Orange va devoir réagir parce que. encore une fois voilà c'est mortal combat bi ngay wax mm-hmm. vie à la mort. mais mortal combat bi est-ce que euh, aujourd'hui loolu aussi euh, du concurrence bu xaw a parce que dumping bi ñuy gis nii xaw na garaaw quand tant mieux pour le consommateur. tant mieux pour le consommateur mal de normes. Il y a des gagnants et des perdants. Voilà. Les gagnants, c'est les clients. Les perdants, c'est justement les prestataires. prestataires. Et en partie les entreprises. Et n'oublions pas, un acteur extrêmement important, c'est l'État. Mmh. Parce que moins de frais c'est moins de chiffre d'affaires, moins de chiffre d'affaires, directement ou indirectement, c'est moins de, de, de, de perçus pour l'État en termes d'imposition, en termes on, de taxation. On peut même vous demander où est le régulateur dans tout ça. Mais justement, mhm. alors, euh, euh, Malik disait tout à l'heure que ni, oui, dumping, etc. Alors, tout ce qui se fait là se fait sous réserve quand même de deux limiteurs. benn bi c'est la loi et la réglementation la loi et la réglementation bancaire. Euh, euh, état du Sénégal ci boppam euh, le commerce est, réglementé dans dans ce pays. par exemple une règle de droit très simple. on ne peut pas vendre à perte c'est interdit dans ce pays mënoo jëndee fukk di jaayee juróom parce que c'est de la concurrence déloyale c'est la loi qui le dit beneen bi c'est la régulation alors la régulation en la matière est assurée par la BCEAO c'est le principal régulateur évidemment il y a aussi des mécanismes de régulation interne au niveau de l'État ARTP sur la partie quand téléphonie et mais euh, côté mm. finance ak euh, qui régule mm-hmm. alors c'est ça euh, koo fàtte mm. parce que jooni jooni bi mu nee bërit fii daanaka riir mu woyof am amoon na ko euh, war yi tamit même chose mais ñoom ñëpp fi mu nekk nii daanu noonu ndax Wave combat bi du ci bàyyi ay plume ndax doole bi orange mu am. c'est possible mais Wave aussi. Ah, n'oubliez pas qu'il y a quelques semaines seulement Wave a levé une centaine de milliards de francs CFA. Mmh. grâce notamment à Partec euh, qui est euh, mm. un fonds d'investissement spécialisé dans les fintech dans le numérique affaire bi c'est c'est c'est quand même une guerre très complexe hein euh, sont pas des manchots c'est c'est des gens qui réfléchissent qui ont qui ont am nañu ay ay ruq-ruq yu ñu jaar dañoo préparer seen coup dañoo préparer seen coup après maintenant il y a les règles euh, voilà économiques qui vont s'appliquer mm. la première règle c'est que guerre des prix moom à la kulihal day am limite mënuñu continuer Wave dootul ñëw proposer 0,7 pour cent après Orange 0,5 pour cent et cetera je pense que ils vont se battre ñoom ñëpp je pense. a des limites infranchissables. oui euh, oui oui c'est vraiment euh, niveau bi nga xam ne euh, bés bi day arrêté. Mhm. je pense qu'ils vont travailler sur deux trois choses euh, mais je je me focalise sur benn bi en particulier parce que euh, loolu mooy tamit euh, modèle économique. Mhm. moom mooy. qui paye pour la valeur que je crée Qui paye Alors, euh, de moins en moins, le client va payer parce qu'on nous propose des baisses euh, continues, etc. Dieu seul sait est-ce que ça va s'arrêter. Si ce ne sont les, euh, les, les, les, clients, mm -hmm. prestataires, ils nous Prestataires, ils ont une rémunération. L'un de mes l'IDES, mon banque centrale, may les fintech ak des opérateurs tels que Orange mais euh, Free euh, euh, Expresso ak ñeneen mhm. ah may leen ñu def des activités de type bancaire mhm. pas bancaire mais euh, qui s'approche un peu mmh. mooy rémunération des comptes mais aussi euh, collecte de dépôts mmh. et puis accorder des crédits comme ça sa taux d' intérêt bi ngay joxe crédit bu ëppee sa taux d' intérêt bi ngay rémunérer ñi yore seen xaalis parce que c' est beaucoup d' argent quand je vous dis en un semestre vingt mille milliards de francs CFA au niveau de la de de de, de l' espace Vous vous rendez compte de ce que c'est C'est quand même énormément d'argent. Mm-hmm. Euh, les derniers chiffres de la masse monétaire au Sénégal, c'est 6 000 milliards. Mm-hmm. Vous imaginez euh, ce, volume d'argent nekk ci ay portefeuille bu ñu mayee ñooñu ñu koy rémunérer ba pare di accorder ay prêts et cetera. Mm-hmm. loolu c'est une solution lu ko mooy lu ko mooy. Et ça, c'est le dernier point de mon analyse par rapport à qui va payer le prix fort. Mmh. peut être aussi le personnel dans les entreprises. parce que boo baissee sa prix yaa ngi roñee sa marge boo roñee sa marge qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que il faut que nga maîtriser sa ay dépenses say charges alors il y a beaucoup de charges il y a des charges fiscales il y a des charges sociales et cetera mais charge fiscale ak charge sociale amoo ci maîtrise c'est l'État te da fay par force par contre li nga am maîtrise moom mooy sa courant bi ngay fay euh, sa location yi ngay fay bâtiment yi ngay louer et cetera c'est aussi les salaires que tu payes personnel soit externalisation de beaucoup de choses soit nga wàññi sa personnel donc yooyu yëpp ce sont des leviers mmh. voilà pourquoi je dis c'est vraiment une guerre qu'il faut suivre et je suis convaincu que actuellement dans les écoles de commerce dans les écoles de management les gens les professeurs sont en train de s'en donner à cœur joie parce que c'est un cas d'école <laughs> extraordinaire ah Marcel juste pour terminer euh, point que tu vas aborder euh, dans ce sens euh, prestataires yi ñu ngi koy wax mm. Euh, il souffre de, ce, cette, nouvelle, voilà, de mmh. cette guerre-là entre les deux principaux euh, opérateurs de ce marché. Euh, Ken qui qui ci ñoom ñi ma nee na tout ça c'est de la faute à Wave. parce que 1% Renapta voilà bon on va parler ñoom <laughs> mm. donc 1% la ñu la ñu imposé ba ñuy ñëw donc déjà à ce moment-là rek ñoom foofu la ñu casser le, le, la concurrence est-ce que tu es de cet avis-là et une société comme Wave quand elle procède de la sorte di bëgg a wàññi ay frais yu toll ba ci 1 pour cent quel est le manque à gagner parce que yaa ngi wax sànq orange ñoom peut-être mënuñu am problème boobu parce qu'ils ont d'autres alternatives mm. à part le mobile money pour pouvoir couvrir certaines dépenses mais Wave naka lay arrangé woo pour mën a euh, combler ce, ce, ce genre de la réponse courte de volume gis nga secteur boo jël nit ñi di xeex ci prix di wàññi prix mm-hmm. wàññi pris moom mooy wàññi sa marge or euh, de deux choses l'une loolu mooy modèle économique ah. Mm -hmm. économique moom mooy euh, par exemple mën naa la jaay damay jaay dara mais su ma si jaayee cinq ay caterpillar lay jaay. mais mu ngi jar benn bu nekk 800 millions. su ma si jaayee 5 man def naa sama chiffre d'affaires annuel. couvrir naa samay charges. Euh, sama marge bénéficiaire génn na et cetera. jaaykatu gerte caaf bi il faut mu jaay 2000 gerte caaf par jour pour am la même marge. Mm-hmm. ok alors donc baisser prix ça veut dire sa base clientèle nga élargir ko donc Wave n'a d'autres n'a d'autres solutions que d'élargir sa base client c'est à mooy seen stratégie bi mhm. c'était un prix de pénétration dugg ci marché bi indi benn prix boo xam ne ñëppay riir ñëw ci yow mhm. mais encore faudrait-il pouvoir garder cette base clientèle Et c'est la réponse de Orange. Mhm. Je ne vais pas te laisser élargir ta base clientèle et faire du volume ce volume boobu dinaa ko arrêté dinaa ko roñee wàññi ko de sorte que yow sa modèle bi dootul nekk un modèle viable mhm. parce que si tu ne vends pas suffisamment ce 1 pour cent bi parce que c'est la valeur créée ah 1 pour cent bi da nga koy séddoo looloo indi RENAPTA parce que ci bi la rémunérer prestataires yi ci bi la jël seen ay charges moom la ñuy marge bénéficiaire boo amul multiplié par x clients doo am marge boobu pour couvrir ses charges notamment les charges fixes donc euh, euh, vraiment c'est ça l'intérêt de la guerre qui se passe c'est ça l'intérêt du euh, de, modèle économique évidemment les les prestataires mm-hmm. heureusement qu'ils sont qu'ils sont organisés hein, au, au, sein du du du parce que lu ko mooy daanañu woon am pouvoir d'influence il faut ñu am pouvoir d'influence. leneen bi kenn kenn yëgalu leen alors kenn yëgalu leen parce que rien n'oblige les les parce que on est dans un secteur quand même de libre commerce. c'est-à-dire les prestataires peuvent décider que ni du ñu def euh, s'ils parce que c'est pour ça qu'ils sont organisés mën nañu boycotter l'un des opérateurs mhm. wa illa am nañ pouvoir de négociation vis-à-vis de l'État qui régule le mhm. secteur vis-à-vis de la BCEAO mhm. parce qu'ils sont si organisés que ils sont reçus aussi par la BCEAO mais aussi les opérateurs oui les opérateurs alors les opérateurs aller chez l'opérateur et négocier que ñu bañ a roñe ñoom seen part après les négocier l'opérateur n'a qu'à se débrouiller pour trouver de l'argent ailleurs mhm. mais franchement c'est un écosystème assez complexe et loo ci laal day déstabiliser ñeneen ñi actuellement vraiment je, je je suis curieux de savoir d'ici six mois un an. ce qui va se passer inchallah merci beaucoup merci Souleymane Niang ci euh, jàngat bi léegi léegi dañuy jàll ci taxaw seetlu bi focus bi tey wàllu cosaan ak aada